bi commencé ak léegi fukk ak benn vol ñoo waroon a dem ci bésub tey ci niñ ko programmé juróom-ñeent yépp dem nañu te amul benn retard mu tolloog daanaka ñetti junni ak juróom juróomi téeméeri ujaaj mu des yeneen ñaari vol yi benn bi dem na tey am na retard beneen bi suba lay dem bi waroon a dem tey suba lay dem loolu nag euh, euh, li tax mooy kenn ci acteur yi muy Air Sénégal moo matalewul ay roplaanam ay avion yi nga xamante ne ni ñoo waroon a yóbbu ujaaji maanaam ñaar lañu waroon am bés bu ne am na benn bu fi ne am na benn boo xam ne dañu ko luye woon benn boobu ñu luye woon mooy moom moo tardé ñëw moo yéex a ñëw ba tax na ak suñuy équipe ñu dajaloo waxtaan wut yeneen solution ngir mën a permettre ujaaju ñu dem moo tax tey daanaka ñu yóbbu lu ëpp ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ujaaj yi fi desoon donc mu des euh, ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk yoo xam ne suba la ñuy dem